aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaan di ñu déglu ñu ngi ci sunu émission bi ñu tuddee taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 tey jii nag ñu dellu siwaat di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal alxaaji Abdul Fatah Mbacke ibnu ma du Fadal sunu borom may ko fan mu gudd lool ak wér ak ngërëmal Serigne Fallil Euh, ñu dellu siwaat tey fas yéene waxtaan ak yéen waxtaanu gàtt woo xamante nii dañ ci waxtaan te waxtaan la woo xamante ni jàpp naa ne mooy wi gën a itteel bokk na ci gën a itteel ñu waxtaan ak mooy sant yàlla sant yàlla nag da ñaari façon mooy sant yàlla gi nga xam ne yàlla daf laa defal loo xam ne da koy sant ak sant gi nga xam ne daa yeyoo nga war a sant ndax alhamdu xaaji cant yi ñeent la lillaahi ñeel yàlla cant yooyu nga xam ne yëpp dafa delluwaat ci sunu borom li ñuy wax ne alhamdu ak sukkuru yooyu danoo am tuuti ak wuute gu ndax te sant yàlla kat li tax mu jar a ak jar ñëpp di ko def mooy sunu borom da caa dële lu rëy sunu borom dane la in sakkartum la asidannakum bu ngeen ma santee ma dolli leen te jàpp naa ne jullit bu nekk dafa bëgg ndool leen ci ci ci boppam waxtu wu nekk dafa bëgg yokk dafa bëgg am wërsëg dafa bëgg am kàttan dafa bëgg am nàngam dafa bëgg kii am na ñoo xamante ni nag seen mbir yëpp mu ngi ci bëgg a siiw am ñoo xamante ni waaye teewut ànd ak loola lépp da war a sant yàlla ci lim la def yow mi nga xam ne bu fekkee ne suñ borom dafa wax ne ku sant ma dolli la suñ borom nag dafa am ay règlement yu mu tëralee dolli gi mu lay def tey ji may na la wërsëg bu bari wërsëg woowu nga seet ay néew ju doole nga dimbali leen suñ borom dalay yokkal sa wërsëg yow ko tey ji am nga kàttan bu bari koo xam ne dangaa am kàttan ngir mën a xeexal lislaam mën a taxawu lislaam suñ borom dalay dolli kàttan yow mi kat da nga mokkal alxuraan doon koo xamante ni da nga taxawu diine alxu diine lislaam suñ borom dalay dolli xam-xam boo xamante ni daanaka jàngoo ko xam-xamu ilxaam lay doon moo tax kon sant yàlla gi ngay sant suñ borom dafa wax ne te sant yàlla nag dafa bari benn bi ci làmmañ la yenn ci ay cër xam ngeen ne sunu borom bi muy wax ne aadama daawuda naa ko ixmaloo ala daawuda sukkuran sant leen yàlla yéen daawuda yéen ñoo ñi nga xam ne sant leen yàlla lu ñuy sant yàlla mooy li leen yàlla defal ñu xam ne sant boo génnoon fii tey di dox di nga gis benn waay boo xamante ni yow ñaari tànk yi nga am di dox moom benn tànk la am yow nga war a sant yàlla wala ñaari tànk yi nga am waaye ji nga nekk ci wetam boo génnee di nga gis ne amul ñaari tànk nga am ñaari bët gestu gis koo xamante ni benn bët rek la am nga am di dégg gis koo xamante ni yàlla natt na ko du dégg du gis du def dara te yow yàlla natt defar na la tawféex yaa ngi dégg yaa ngi gis yaa ngi wax am koo xamante ni du dégg du gis mënta wax loolu lépp nga war a sant yàlla ci la yaa ngi gis koo xamante ni mu ngi taxaw ci yow di la tàllal loxo naa la sëñ bi dooma dimbali ci nàngam ci dépasse tey wala dooma dimbali ci ordonnance yow yàlla def la ba yooyu yëpp doo ko def doo taxaw ci diw sàngam ne ko lebal ma doo taxaw ci diw sàngam ne ko jox ma ndax yàlla jox na lool doy kon la nga war a def mooy nga sant yàlla ci li la yàlla defal ci loolu bokk na ci li la yàlla defal ci sant yàlla mooy yàlla may na la wér boo toogoon te yaa ngi gis benn waay boo xam buy dox dañ koy jàpp yaa ngi gis koo xamante fa mu tëdd mënu faa jóg ndax lu ko waral mooy ak wéradi yow yaa ngi lekk di naan gis koo xamante ni buy lekk fi muy lekk ci raakool lay jaar raakool lan koy nawal mu jaam yaa ngi mën a taxaw faj sa aajo am koo xamante nii balaa faj ajoom ci raakool wala ci tiwo wala ci nàngam la ko jaare yooyu yëpp yàlla di ko def ay nit te yow yàlla am lum la may am na benn jigéen boo xam ndeysaan dafa nekk ci benn hôpital yàlla dogal fi mu nekkee ci hôpital bi mu gis benn uh, waajoo xamante ni ab pasero la yor yor oto bu rafet waaye daanaka ay waxtu yu néew rek mu ñëw ci hôpital bi ne mu ñëwaat ndaw si kii de moom sëñ bi jaaxal na ma kii dal ñee ko lool otoom yu rafet yéeg mbasin bi yéeg yam waa ji ne ko ah docteur bi ne ko yow da ngaa xamul xanaa xamoo ni kii saa bu fi ñëwee xam nga lan moo ko fi indi mooy nu muy def ko tuur ndox day am lu mu koy defal mu tuur ndox mu delluwaat waaye mënta tuur ndox ni nit ñi di tuure ndox kon nga war a sant yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi toog di mën a noyyi di mën a am ak wér mën a am nàngam yaa ngi gis koo xamante ni yéen yéen a ngi dend kër yow nga dëkk ci étage moom mu dëkk ci suuf waxuma la mu dëkk ci suuf waaye mu dëkk ci loo xamante ni aw sàkket la wala néeg bu doyadee doyade yow yàlla may la nga dëkk ci kaw nga war a xool ci xam ne da ngaa war a sant yàlla sant yàlla gi nga war a def nag mooy nga jéem a seet nit ki nan nga mën a def ba mën koo dimbali ndax yàlla may na la te yàlla ku mu jox lu mu ëpp rek daf laa séddale loo maanaam yàlla ku mu jox lu la ëpp nii daf laa wax ne la am nañu ci seen wàll nekk wàllu miskin yi ñu ngi ci wàllu ñi nga xam ne da leen a war a dimbali wàllu kor yi mënta laaj wàllu nangam yooyu yëpp yow yaa ngi ànd ak nit koo xamante ni fi mu toll saa boo xëyee yow mën a dem fenn mën a dem caméra wala nga mën a dem defi sa émission am koo xamante ni yéen a nekkoon wala mu dàqale li ngay def te mu mënatut a jóge fa mu nekk mënta defi émission mënta def caméra mënta def dara te li ngay def yëpp moo la ko dàq yow nga war a sant yàlla war a def nangam. nga war a sant yàlla yi tamit ci ñi nga xam ne danoo mënoon te mënatunu ba yow li nga mën a kës niiw nga fonk ko te fonk googu waxuma la dara waaye da nga ciy sant yàlla waxtu wu nekk ndax yàlla bis bu nekk mu may la wér nga am loo dunde te danoo wax ne sant yàlla mi ngi tàmbalee ci doomu aadama ji bis bi nga xam ne benn bis bi xëy bis boobu am na ci dépasse bu mu lekk yàlla may na ko ci wér bis boobu sant yàlla la war a daa war a jàpp ne bis boobu mooy bis bi dàq ci bisam yi xoole Ibrahima bi koy sànni ci sawara wi biñ koy sànni sawara woo xamante ni xam nañ ko juróom benn weer ñu tànni ko ci bëm biñ ko ci sànnee Ibrahima maanaam sawara wi dafa àggoon ci ba képp koo xamante ni yaa ngi seen sawara wi rek boo séenee sawara wi maanaam sawara wi da lay lakk maanaam diggante asamaan ak ak ak sébu bi moom dara lu fi mën a taxaw amut ay dëkk sax toxu na ndax sawara wi Ibrahima biñ ko sànnee ci biir sunu borom fekk biñ koy laata sànni malaaka yu bari ñëw nan ak ñu baax ne ko. Ibrahima te ngaa ñaan yàlla mu jéggal la mu bañ laa tàbbal ci sawar yi mu ne ko ah duma ko ñaan ndax yàlla gis na ma te nee na maay xaritam ah Jibril ñëwaat dikk ne ko dama bëgg musal la ci sawar yu tàggale la ak sawara yu bari kii mu ne ko yàlla moo la ko sant mu ne ko déedéet mu ne ko damaa am ma ne mu ne ko yàlla moo la ëpp yërmande waaye loolu li nga ciy gise gis nga Ibrahima bi ñu ko sànnee ci sawara wi eh, te sunu borom wax ko ne ko yaa naaru kooni bardan wa salaama ala ibrahima ne sawara wi seddal ci ibrahima te nga indi jàmm ibrahima bu ñu koy laaj ci dundam dund bis yi la dàqal ci sa dund bis yi gën a neex nee na bis boobu mooy bis bi gën a neex bis bi ñu ko tàbbale ci sawara wi te sant yàlla rek ko waral xoolal ibrahima rek sant yàlla doy na ci ibrahima bi ko sunu borom waxee ne ko dangay rendi sa doom ji ah ba mu ne waaw ne yàlla comme waxtaan ceeg doom ji doom ji ne ko bàyyi ginnaaw yàlla moo la ko digal yow daal li ngay def fexeel ba boo koy def na nga wut paaka bu ñëw te na nga takk samay bët mu dikk waxtaan ak soxna si soxna si ne ginnaaw yàllaa la ko digal kay def ko xoolal sunu borom bi nga xamee ne tëral nañ la ba nar koo rendi sunu borom yebal am xar ne Jibril heure boo fexe ba paaka bi laal la dinaa déggaraate ci la déggaraate xoolal bis boobu tey ku rayati am xar Ibrahima am ci yool ki yool bu baree bari boo xam ne tey loola dafa cee war a sant yàlla yàlla moo tax bu la nattee tegee balaa da ngaa war a sant yàlla bu la tegee xiiwal da ngaa war a takk sant yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ajabal amrul muminina nee na jullit daal ay mbiram yéem na ma jullit bu ko yàlla defee nattu mu muñ ko yàlla defal ko xiiwal jullit bu ko yàlla mayee xiiwal mu sant yàlla dolli ko ji kon jullit amut pertement ci dara jullit bu nattu ñëwee amut pertement jullit bu xéewal ñëwee amut pertement moo tax jullit bi nag li mu war a saxoo sant yàlla sant yàlla baatu alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla waxtu wu nekk ala kulli aal am na ci mag ñoo xamante ni waxtu wu nekk seeni mbir mooy maa ngi sant yàlla sa sant yàlla dafa war ndax yàlla dafa am lu mu la defal même bu la defalut woon dara sant gi rek ko war yow ku la di bind ku la may ngay noyyi ku la may wërsëg ku la may gudd fan ku la may nàngam ku la may nàngam yëpp yàlla moo la ko defal suuf si ngay dox suufu si yàlla la li ngay noyyi xoolal noyyi ni méttee bu fekkoon ne bala ngaa noyyi da ngaa fay ñaata la ñuy fay kon benn waaye nee na damaa dem benn paa boo xamante ni ku magala juróom-ñett fukki ak nàngam nee na juróom-ñett fukki at yooyu mu am yàlla dogal mu nee na bi mu demee ci hôpital bi ay bëtam di metti mu dem ci hôpital bi nee yàlla dogal bi mu demee ci hôpital ñu xool ko opéreel ko bët yi defar ko yépp opéré bët yi daal di dikk nee bi ñu ko opéré ba faj ko ba noppi nag daal di koy bindal benn facture nee na bi ñu ko bindalee benn facture mu tàmbali di jooy ñu ne ko ah waaye sëñ bi looy jooy mu ne ah ndax yow facture bi ñu la bindal dafa seer da nga ko mënta fay mu ne déedéet mu ne ko teenoo wax directeur bi mu wàññiwaat ko ndax facture bi xañ na nangam mu ne déedéet mu ne damaa xam ne man yàlla bind ma ba ma amee ba ma bindee ba léegi maa ngi xool ci sama bët yi mosumaa indil benn facture yéen tey ngeen ñëw opéré ma defaral ma sama bët yi rek daal di may jox facture loolu moo ma jooyloo te xoolal yàlla mosul du leen a fayal du leen nag te yàlla yi gën a yomb li gën a metti ci yow nga xam ne boo ko amul moo gën a doon problème loolu la gën a lekk fi ñu toll mën ngaa toog ñaari fan ñetti fan doo lekk fi ñu toll lekk ni mu jafee ndox jafewul noonu ndox mënoo toog benn bis boo naanoon ndox yàlla indil la ndox nooy yi gis nga ni nooy yi ni mu neexee ak ni mu kii fi ñu toll bu fekkoon yàlla daan la bala ngaa nooy daa am loo pompe wala booy nooy danga da may fay wala dara waaye xoola air bi ci ngay nooyi ngelaw li nooy boo xamante ni doo am benn problème yàlla laaju la ci dara gis nga ni mu la koy defaloo boo tëddee di nelaw yàlla tàmbalee di la indil xiiwal goo xamante ni yaa ngi nelaw xanaa kuy nelaw ko waroo am benn sécurité waaye gis nga ne booy nelaw sax daanaka pour dara dugg la ak weñ gis nga boo nelawul defu dara sax dangay ngay jékki-jékki yoo dugg ci sa bakkan wala weñ dugg la wala dara corxaan la waaye boo tëddee di nelaw dara du la du lu ko waral mooy yàlla moo la garanti te moo lay jéem waxtu wu nekk moo lay aar kon mbokk yi sant yàlla du jeex danañ ci gën a xuus bu baax a baax waaye nit ki daal war na waxtu wu nekk muy sant yàlla ak lu mu mën a toll ak benn aalam bu mu mën a toll ak jamono bu mu mën a toll rek na sant yàlla tey jii da nga daan am amu santal yàlla lu tax yàlla xañ la ko xamu ko yaa ngi tàllal say loxo di ñaan te sant yàlla ci jullit de mi ngi tàmbalee bi la yàlla bindee def la nga ëpp jullit loolu rek mooy sant yàlla gu rëy yàlla bind na la def la jullit loolu sant yàlla la moo tax sëñ Tuubaa léppam di sant gis ngeen ne màggal gi da ko woote ngir sant la yàlla gis ngeen ne boo demee ci xasidaam alhamdulillahi karim silmina boo demee ci nu mu tuddati yaa ngi démb alhamdulilah ak mi bii man kaw na woo li yabin li yabin boo demee ci tuxfatul dara ini tamit loola la ca tàmbalee yooyu yëpp ay xeeti sant yàlla la yoo xamante ni sëñ Tuubaa da koy def kon mbokk yi sant du jeex waxtu wu nekk nit ki mi am na lu mu war a mën a sant yàlla waxuma la sant yàlla waaye sant nit ku la defal dara sax dafa bokk ci sant yàlla maanaam tey damaa yenu fii bagage di dem cerno mi gis ma wala kenn gis ma yanul ma ko wala mu seet ne damaa soxla dara mu defal ma ca loola war naa koo sant ndax yàlla mi ko yabal ngir mu defal ma lool te su ma ko santee rek ndax moo tax sunu borom daane ku santut nit ñi doo sant yàlla ndax yàlla xëyutu xëy rek tawal la xaalis wala mu tawal la wurus waaye daf koy jaarale ci nit kon ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp di baalu àq ñépp di leen sant ci sunu jataay bi ñu amoon ñu àndoon ci ki nga xam ne moo nekkoon ci caméraman bi di Thierno Faye ki ko doon monte mi nga xam ne moo di Serigne Cheikh Gueye ñuy leen di jox daje ci yeneen i jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.